وإلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله الواسع في عطائه الكريم في جزائه دعا إلى التبرع والإحسان ووعد بالأجر والرضوان ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا محمدا رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله يقول جل في علاه وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى mbokk yi ginnaaw bi ñu sant yàlla subhanahu wa taala mi borom may yu yaatu yi borom bi subhanahu wa taala mi borom tera teddaange borom teddaange gi mën a fay moom yàlla subhanahu wa taala mi woote ci li ñuy wax atabarru mooy doxin wala gëm-gëm wala xalaatu coobarewu wal ixsaan ak rafetal yàlla moom subhanahu wa taala moo ci digle ay fay yu rëy ëllëg yowm alqiyamati ñu ngi seede ne amul kenn ku nu war a jaamu ci dëgg ku dul moom subhanahu wa taala te bokkaale ñeelu ko ñuy seede ni suñu sang muhammad sallallahu alayhi wa sallam lawam la yàlla yàlla julli ko sëlmal ci moom barkeel ko moom ak i njabootam ak i saxaabaam ak képp ku topp ci jubam bokk ñuy dénk suñu bopp di leen dénk ragal yàlla subhanahu wa taala ñun ñu ko waxee ci alquran karim mu ni wa ma tafaalu min xayrin lépp jëf bu ngeen jëf muy lu baax ya'lamuhullah xam leen ni yàlla xam na ko wa tazawwadu nañu yóbbulu nag te fa nu jëm lañ fay soxla mooy ak yiw mu ni nag fa inna xayra zaadi taqwa yóbbul bi gën nag ci fu jaam bi mën a nekk ci kaw suuf mooy ragal yàlla def li yàlla digle kon lu mu ko digle waaye bàyyi ay tereem kon nam ko teree mbokk yi suñu xubbee tey dañ koy amal ci li ñuy wax saqaafatu tabarru mooy culture du don ni jaam bi di war a joxe ak di def defu coobarew ci yoonu yàlla muy valeur boo xamante ni qiimatun imaniyatin saaniha saamiya muy valeur bu mag ci pas-pasu doomu aadama ci gëm-gëmam muy joxe ci coobare muy it culture bu noobul ci doomu aadama bi ci yëkkati gi mu koy yëkkati te muy cislaayu lépp loo xamante ni luy boole di dajale ay nit ba ñu doon benn lii di taqaafatu tafarru mbokk yi li muy tekki mooy al ataau bila muqabilin wa tafaddul bila awad bila iwad wal badlu bila thaman mooy joxe goo xamante ne da nga koy joxe te yoon yàlla te ba nga ko joxee xaaroo ci contrepartie da nga koo joxe rek wane ginnaaw xaaroo ci jërëjëf xaaroo ci jazakumullahu xayran xaaroo ci reçu da nga koo defal te yàlla tax ibtigaa wajhillahi wa talaban li mardatihi jalla fi wala comme ni ko borom subhanahu wa taala waxee innama nut'imukum li wajhillah la nuridu minkum jazaan wala shukura mooy ñi nga xamante ni bu ñuy def bu ñuy joxe ñam dañ koy joxe te yàlla tax soxlawuñ ku leen wax jazaan wala shukura jërëjëf wala jaajëf mbokk yi lii di joxe ci yoonu yàlla yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da cee wax benn xadis mu ni kullu maarufin sadaqa mu ni bépp njëkk bu doomu aadama def rek sarax la te sarax la jëfandikoo baatu sarax ndax borom bi subhanahu wa taala bi muy ne bi muy melal ñi nga xamante ne dañuy rëccu seen dund ci kaw suuf bay ñaan yàlla mu delloo leen ci àdduna ngir ñu def dañ ni rabbi lawla axartani ila ajalin qaribin fa asaddaq waxuñu lawla axartani ila ajalin fa usalli wala lawla axartani ila ajalin fa asuum waxuñu julli waxuñu woor waxuñu xeetu jaamu yàlla yooyu yëpp waaye fa asaddaq lañ wax delloo may yàlla ci ci ma dellu ginnaaw tuuti ci àdduna rek ngir ma sarax kon ñoom saasaam bu ne kullu maarufin sadaqa bépp njëkk bu ay def lépp lu baax lu ay def rek sarax la mu ne xadis bi daf di xadis boo xamante ni yonente bi sallallahu alayhi wasallam bu mu ko waxee saxaaba yi la jëmbat ci seen xol yi lii di joxe tabe ci yoonu yàlla fa bazlul ma'i tatawwu tabarru ki am alal di joxe ci yoonu yàlla ci alalam loolu tabarru dañ koy wax wa bina'il masajid wal mustashfayat tabarru ñiy tabaxi jàkka comme suñu jàkka ji ak it di tabax di hôpital bërëb yoo xamante ne dañ koy tabax ba mu jekk joxe ko te duñ ci xaar contrepartie loolu tabarru la wa taqdimu al ilm wal xibarati tabarru la mooy nga tawe ci sa xam-xam di ci yee nit ñi di ci gind nit ñi di ci orienté nit ñi ak it sa expérience di ko indi ci lépp luñ lii dañ cee soxla xalaat bu sell nga indi ko loolu tabarru la wa musaadatu nnaasi tabarru dimbali nit ñi tamit fekk nit ñi nekk ci ay jafe-jafe ay soxla nga teggil leen googu soxla loolu tabarru la nekk qaala alayhi salaatu wa salaam taadilu bayna al ithnayni sadaqa wa tuciinu rajulu fi daabatihi fa taxmiluhu alayha aw tarfacu lahu alayha muta mataa sadaqa walkalimatu tayibu sadaqa wa tumiitu al ada an altariqi sadaqa yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yii mu lim yëpp ci xadis bi ay sarax la yoo xamante ni luy jariñ jaam bi la muy maandu ci ñaari doomu aadama nga maandu ci seen diggante moom nee na saraxal ak it dimbali nit ki moo xam da ngaa yor daabar romb nit ki yóbbaale ko sadaqa la moo xam dafa yori bagage bëgg nga yóbbul ko ko fenn rek loolu it sadaqa la mu ni ba ci wax ju rafet sadaqa la wa tumiitu l ada an tariqi sadaqa nga fekk ci yoon loo xamante ni luy lore la moo xam am pax la moo xam xeeru fa nekk moo xam bant moo xam loo xamante ni daal mën naa lor doomu aadama bu fa jaar nga jéggi ko ci yoon bi loolu sadaqa la wa indama su'ila alayhi salatu wasalaam ayu nnaas ahabu ila allah wa ayu l amal ahabu ila allah bi ñu laaj yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko nit ñi ana kan mooy ki ci gën ak jëf yi tamit ana jën jëf mooy ki ci gën qaala sallallahu alayhi wa sallam ci la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni ahabu nnaasi ila allahi anfa'uhum linnaas mu ni ki yàlla ci gënal yàlla ci nit ñi mooy ki amal njëriñ nit ñi ki leen amal njëriñ kon islam reconnaître nit koo xam ne dafa yaafuus koo xamante ni mënoo dara defoo dara loolu islam reconnaître ko wa ahabu al amalu ila allahi sururun tudxiluhu ala muslim ki yàlla gën a bëgg nag ci nit ñi mooy ki nga xam ne day jëmbat ci xolu nit ñi ak mbégte mooy kii bëggal nit ñi di fexe nit ñi di nekk ci ak mbégte mu ni aw tabsiku anhu kurba wala nga fekk doomu aadama bi nekk ci njaaxle bopp bu tëju nga fexe ba génne ko ci loolu noonu aw taqdi anhu daynan wala nga fekk nit ki am bor yoo xamante ni mënu koo fay nga ñëw fayal ko bor yooyu nee na loolu ba tey ba nit ki tabarru la bokk aw tatlu anhu juan wala nga fekk nit ki mu xiif amul lu mu lekk nga layal ko loolu tamit yoon saa sallam nee na kii def loolu moo ci gën ci ci doomu aadama wa kulluha an awjahi tabarru azim wa abwaabihi aljalil wa min asma tilka al abwaab an taraha aljud bi taami wa saqi lma li ci yoon saa sallam wax ni nag mooy ba ca gën ca li nit kiy def te yàlla jàpp ne kooku mooy ki gën mooy koo xamante ne dafa fekk nit ñi nekk ci xiif ak mar nga génne leen ci xiif ak mar boobu naka noonu la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fekkee ñoo xamante ni dañu nekkoon ci benn teen di jukki ay baag ngir di nandal ay nit yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba leen fekkee daf leen wax ni i'malu fa innakum ala amalin salih bu doon suñu langage ñun dañ naan waaw góor la leen wax mu ne jëf leen te li nga da ngeen xam ne lii ngeen di jëf de jëf ju baax la jëf ju yàlla gërëm la yemul ci loolu moom alayhi salaatu wasalaam mu ni summa qaala lawla an tughlabu ay yuzaahibukum nnaas ala siqaaya la nazaltu xatta adau alxablu ala had mu ne su ma bañul woon a wàcc fekk leen ci lii ngeen di def root bii ngeen di def mu nekk ab rëj rëjloo nee na man alayhi salaatu wasalaam dinaa wàcc fekk leen ci liggéey bi ngeen di liggéey ma jël buum bi teg ko fii mu joxoon ci mbaggam mu di di xëcc mbaggam bu tedd mi alayhi salaatu wasalaam la joxoon mais gis ne yoon saa salaam dafa fekk ñoo xamante ni dañuy def lu ñuy wax amalu saalix waaye mu soññu leen ci ngir ñu taxaw naka noonu mbokk yi la lii di tabarru nekkee mbir boo xamante ni doo ko def rek benn moment rek mu jeex nga bàyyi ko déedéet waaye mbir la boo xamante ni bari na ay domaines yoo koy defee bunt bu tëju rek ci def ci yoonu yàlla beneen bunt day daal di tijjeeku bunt bu tëju rek beneen bunt ci def ci yoonu yàlla taxaw na mu ne bi ci gën nag mooy al waqfu li umumi nafaihi wa istidamati xayr mooy li ñuy wax waqf mooy jëf joo xamante ni soo ko defee fay gi du yam tey jii rek waaye day ànd ak yow ba booy barzax fa ngay tëdd yor ga di la fa fekk wa kadalika tabarru bi dammi wal insijati wal aada naka noonu li ñuy wax don de sang ci tabarru la bokk ci coobarew la bokk ndax lii di don de sang di nga fekk hôpital yoo xamante nit di dafay ñëw ñàkk deret bu bari la muy soxla moom mooy deret fekk banque de sang ya jeex na tàkk bu fekkente ne nag woote nañu li ñuy wax don de sang nga dem wuyu ji maye ji deret yow bokk na ci ñi nga xamante ni ñi borom soo taala wax ni wa man ahyaaha fa ka annama ahya nnaasa jamian ndax da nga sobe bakkan bi mu ne nag yaa ngi mel ni ku sobe humanité bi yëpp mbokk yi lii tabarro dafa bokk ci loo xamante ni da koy def mooy dafay delloowaat nit ku confiance ci mu dundaat dafa bokk tamit ci luy lu muy def mooy di jëmbat ak mbégte ci doomu aadama yi ndax koo dimbali rek kooku ëmbal na ak cofeel te du yem ci moom waaye day law ba ci famille yi ndax ki nga xamante ne dañ kaa dimbali te ay mbokkam nekk fi kooku ay mbokkam dañuy jàpp ne da nga leen wuutu ci liñ leen wax loo leen war liñ leen war a defal bu ko defee loolu li muy jëmbat seen biir xol moom mooy ak mbégte ak bennoo ak rafetal ñi nga xamante ne moom la borom saa taala wax ni ñooñ ñooy ñi am boo ko lee xol mooy ñi nga xamante ni seen xol dafa sell ak mbaax nekkati ak ngëm yàlla aqulu ma sami'tum wastaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله الذي جعل التبرع بابا عظيما من ابواب البر وسبيلا كريما لنيل الاجر والصلاه والسلام على سيدنا محمد خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين mbokki ginnaaw bi ñu sant yàlla subhanahu wa taala moom mi jël lii di coobarew ngay def ci yoonu yàlla te yàlla rek tax mu di buntu boo xam ne da koo tëj te mu bari ay ay domaines yu bari yu ko jàmm bi mën a defee ngir ëllëg mu am ci ayu yàlla bu màgg ñuy jullit bi salmal si suñu sangu muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom mi mujjantalu képp ku yàlla mos a yónni nga yonent yàlla ci yàlla fayal moom ak i saxaabaam ak képp ku topp ci jubam ba ko gis penc di taxaw mbokk yi lii di tabarru muy coobarewu mbir la boo xamante ni wala jëf la joo xamante ni du ak jamono mu koy def mu weesu waaye jamono bu ju nekk da nga war di wër di def di coobarewu ci loo xamante ni nit ñi mën na ciy jëriñu te it mooy loo xamante ni dafay ràbb lii di diggante yi di defar seeni alaaka ba mu nekk ay alaaka yu rafet li muy bind ci nit ki nag moom mooy nay ndax lii di joxe moo xam sa alal la moo xam xam-xam la nit ki dina ci nay ba du ko joxe moom la yàlla wax ni wa man yuuqa suxa nafsihi fa ulaika hum muflixuun képp koo xam ne yàlla fegal na la ci nay ba nga mën di coobarewu kooku de mooy ki nga xamante ni texe na yàlla na ci yàlla boole ñi nga xamante ni ba tey dañuy coobarewu te yàlla tax ñooñu jëf jooju yàlla mu ne li ma leen di xaare mooy wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yuxliquhu wa huwa xayru raziqin ki nga xamante ni dafay joxe te yàlla tax yàlla mu ni man yàlla de dinaa la wuutalal la nga joxe te boo ñëwee di nga xam ni man yàlla ku mën a fay laa wa ma inda allahi xayrun wa abqa afala taqilun yàlla mu ni li nga xamante ne moo nekk ci man ci fay moo gën fuuf la ngay rënk yow di ko dajale ka compte nee ni ndax yéen bu ngeen xalaat ci loolu yéen mbir mbokk yi kon lii nga xamante ne mooy atabarro kenn ku nekk war na ci xirtal boppam waaye di ci xirtal njabootam di def ci yoonu yàlla ba tax na lii nga xamante ni moom mooy suñu jàkk gi ñu yàlla dénk ñu nekk ci di ko defar te mu des ay liggéey yu bari kenn ku ci nekk bunt la bu tijjeeku sa kanam bu dee xam-xam nga ci am boo ci mën a def bu dugg ci jéem la nga def ci yoolu yàlla te yàlla tax bu dee ni alal nga am pour di ko ci def nga def ko te yàlla tax fay la boo xamante ne du yem tey mais day law ba ila yawmi diin ni nga koy tàmbalee sa njaboot bokk na ci li suñu benn cheikh waxoon mi imam Alioune Badara Ndaw yàlla na ko yàlla yërëm waxoon na ni. ñun dañu tàmm di tàllal suñuy loxo ku nekk ñu dem di fa laaj ngir jëmbal suñuy mbir yoo xamante ni bu ñu organisé wu mën nañ koo def mbokk yi kenn ku nekk ñaar fukki dërëm mën nga ko yëkkati chaque ajjuma nga jël cent francs yi sa njaboot kenn ku ne nga def ko cent francs ànd ak sa cent francs boo ñëwee ba si keesu jàkka yi nga def ko ci loolu mbokk yi société bu ci organisé wu da ngay jombati di jéggaane di dem ci ñoo xamante ni yiw gii ñu la defaral yow mënunu ko defaral sa bopp kon bu dee da nga nag toog bañ defaral loxo ba mu jëmme nekk sa kanam desul lu dul ay jékkali rek kooku dañuy tàllal loxo képp ko xamante ni yàlla dénk na ko lii ñu wax léegi muy xam-xam wala doole wala alal mu def ko ci ëllëg bu demee yàlla subhanahu wa taala fay ñu ko ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم اهدنا إلى صراطك السوي صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام في الدنيا وسلام في الآخرة وسلام مع المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاة يرحمكم الله